rab bi ne déedéet xanaa kay man mi xiifa xiif ba ñas soxor soxor ba ñépp xam ko tey laa lekk ba seeñu sa yax yi def la sama njogonal si kenn bu magaale bi ak baat bu dee bi ne ko ay waay jile dimbali ma rekk ngir yàlla bul ma lekk man dama yooy yaxi kese laa sama mag moo ëpp yàpp moom dafa gudd te rëy kaar ba noppi duuf ba tubaarkàlla diw gi di siit te mi ngi ñëw